yéen ñaar. mais tamit lan la war def tamit. ah du génn defi achat. Ah, dëgg nga wax nag fan yëpp dañuy lëru rek toog ci kër gi dafa ëpp nag ni ñu nekkee de dëgg yàlla. man de xam nga ni génnu naaj bu tàng waxuma si dara man damay bëgg 18 jot rek ma génne ndànk jàkkaarloo gaay bu ko neexee. day defar teewam nag dëgg la wax. mi ngi mel ni tàngal. ngay toj mais baax na kon ñun nag ñun nañ naaj dañ ca nekk jug leen waaye ah xam nga lan na man ba ma jugee ba ma yeewu ba tey sax man sama sangoon ndax dama ragal ndox bi léegi yéen dem leen man maa ngi leen di xaar. ñett Abdou nag la xam dañ koy jàpp sang ko. dem leen rek maa ngi leen di xaar. eh bu ma leen raw ah. foofu rek laa yem. waa léegi baax na dama sangu maa ngi ñëw. waaw baax na kon. yow dox rek nga bëgg. dox toog moom mënu ko. rek. yow moom ndékki yu no retenche yow laa ko gisee suubu léegi ngay ndékki mënoo fexe ba pare ah nu ñuy def du ma jël sama temps ah da ngay jël sa temps baax na man maa ngi dem sangu ji bala muy génnaat fii ne fi di wax léegi yow jiitoo ma maa ngi ñëw comme sa sangu dafa yeex man nga xam ngeen ne fa laay ni di rëdd <laughs> soxna si ça va ça va. <gasps> defal naa defal naa bëgg moom sax nga wàcc. mosoo gént. géntoo de jege woo ko sax. mais attends qu'est-ce qui se passe lan la. je pensais que da nga koy indil garabam c'est quoi comme t'étais pas souffrant. oui mais rogos. teraanga teraanga koy fay. yow li nga ñu defoon yëpp nag lii dong lañ la mënoon fay. pour suñu xol sedd ah doom de. eh <laughs> fii seen côté comme ça ñoom ak ay fonte ok xam nga bëgg relax lan la looy dox lan la xanaa dooga looy tiit. mais tamam dafa jantal de. Hmm? il est si man attends je rêve ou quoi. wala sama jantal ak samay boobu du pour yéen donc yéen da ngeen di tourner film quoi da ngeen di def mise en scène lan la. film ak ñoo sa rek artiste. <laughs> man j'étais juste là parce que da nga dama la gis nga souffrante ma apporter la sama soutien. donc voilà merci man maa ngi ñëw dem. Eh, eh, eh. relax lan la. nga yuuxu. eh eh eh. nga toog xam nga lu ma bëgg fii na fi dugal génnewu la fi. déedéet toogal bala ñu woo gardien bi léegi. kon ñoo mat tudd ak tabaski. dañu mën eh. suñu bopp. déedéet toogal ñu relax toogal. la la yuux ñu waxtaan. lii la. lii lamset la. xam nga li lañ la di la ay vingt dañ koy dagg léegi yoo xam dañu doon violé teg ci duñu menacé te nag xoolal kër gi yëpp ay caméra de surveillance la xam mooy yow nga jox ñu xaalis bi nga yor léegi sax ay tëddeeg yooyu amatu ci ñu lay neexal ndax xam nañ ni bëggoo collaboré dañ ñu jox li nga yor nga jóg dem ndànk wax ji wàcc. bu ah, si. je dis soxna yi qu'est-ce qu'on va faire man dama leen doon dee bàyyi leen ma dem sama yoon regarde ce que vous êtes en train de faire c'est très dangereux oui ma laissez-moi tranquille je vais <laughs> partir moom ba léegi mi ngi wax de wàññil sa baat fii waroo wax ñun ñooy wax déedéet ñun ñi ñooy dañuy bat kay da man de boo xamoon li ma xam di nga exécuté. vous n'êtes que des vermines. yaa a bari wax yaa ñu ci tuwaat. xoolal <laughs> eh. dara duñ ko fàtte. yaa ñu yaa ñëw suñu kër gi. donc fàtte. fekk <laughs> si wuñ la xool. benn def gala ah. <laughs> kan lah terus ya oh kok coba Makanya Mendarin Ay Wah Jauh Me yasa har ne take na yau? ayo eli abra. Dino ko bisa isi super masali. Mhm. muy góor xool bët di wiri wiri gauche à droite. Mhm. lan leen jàpp waa jàng yi téye leen ko. man ba ko xoolee xool ma rek. ma laa xam ne am na la war a xew. ay kuy filmé. attends. nag ay bëtu ragal la. si rek lan sama yaay. ma. dara lu bees. yaa ngi si jàmm yaa ngi dal daal waaw maa ngi noppalu bu baax. d'ailleurs dama am kii yu ma doon eggalee nii sax sama entreprise bi may liggéey noonu waa euh, Bachir compagnie service. Mm-hmm. donc ñoom laa doon envoyé ay rapport nii xam nga léegi les bureaux sont virtuels. avec les nouvelles technologies mu nga nekk fii di liggéeyal fële. waaw mm. te man moom comme amoon naa quelque chose. Mm-hmm. donc mu laa doon terminer nii pour envoyer leen. Mm-hmm. mais mais sinon ça va. yaa ngi dalu yaa ngi dalu bu baax de instant moom da war a moom. am na lu garaaw garaaw lu ma arrivé loo xam ni moom su ma la ko expliqué sax xanaa di nga ma yedd quoi boy daal dama demoon benn supermarché bi def ay achat mm-hmm. daje fa ak euh, trois filles quoi ay xale jigéen mm-hmm. mais kenn ki def malaise donc ni ma koy secourir noonu pour après jël ko dugal leen sama oto yóbbu leen seen appartement mm-hmm. mais imagine kidnappé ma fa kidnappé bi xaalis bi ma waroon yóbbu noonu sama kër bàjjen loolu lépp laa leen jox non non yow booy ni nga meloon ba léegi noonu nga mel quoi yow su jëndoo ba léegi dara changé aussi non non doguma rek lan nga mën a jëlee xaalis bu toll noonu dem di leen ko jox ci noonu booy du ay question wu jondoo mais xamalan laa bañoon mënu moon toog di def non assistance à une personne en danger yaa gis ab nit ku taxaw daanu sa kanam nga war secourir mënoo ko aider aussi sama sama bon sens may quoi. mais léegi léegi da ngay sa xaalis noonu quoi si benn benn las de temps bu ndaw nii. mais léegi yedd instant bi yedd gën li olof di wax. dans cette situation pareil def mais par contre je ne vais pas me laisser faire affaire mariage pour l'instant xam naa dama koy teg quoi. non loolu laay bañ gis nga booy dama lay xamal leen ñee say mbokk leen sa doomu bàjjan est-ce que yaa ngi comprendre dangaa dem foofu wax fa ay waxi gor wax fa ay gor ñu di la déglu ay kilifa comprendre nga nga li nga jéem la maintenir loolu ak moyen yoo mënti am parce que mbokk lu ko yàq dafa yomb son mën nañ koo gisee neneen li am moom am na ba pare kenn mënu ci dara mais li ma lay digal mooy gis nga wax jooju nga wax delloo ko fa nga ko jëlee woon nga def moyen yoo mënti am nga dem maintenir sa plan bi nga tegoon yaa ñoom parce que ñoom ñu ngi toog di la xaar wax nga ak ñoom ba pare. xam nga lan nga comprendre booy.

dégg naa la mais bàyyi ma aussi man ma réfléchir de mon côté. d'accord mun na ne. d'accord.